asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki aar daara ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen fàttali rek ñi ngi ci wàccaayu le 20 février 2022 incha allah mooy dimanche ji nu dëgmal le 20 février 2022 ànd sàmm jikko yi dafa woote ca place de la nation ca Colobane ñu gën ko xam ci place de l'obélisque woote fa ab jataay bu rëy ab ndaje mu rëy moo xam ne dañ bëgg a fësal sunu naqar ci loi bi nga xam ne moom la ànd sa jikko yi di sàkku ànd ak kilifa yi ci diine ji yépp pour ne nañu defar ab loi boo xam ne dafay teg góor jigéen daan yu metti ak képp ku koy kañ ak képp ku leen di financer ñu ne nañu teg ci seen kaw ay daan yu metti loi boobu nag bi ko ànd sàmm ji koy yóbboo assemblée député yi dañ ko bloqué yóbbuwuñ ko ci biir loolu la bëgg fësal ci biti wan leen ne loi bi nañu ko génn te vote ko Sénégal bu dëkku góor jigéen ci ni ñuy sensibiliser nit ñi ak di leen yëgal bés bi nag ardaara ku ne xam na ne membre la ci ànd sàmm jikko yi Aar dafa organiser benn bayaan ajjuma ngir yaatal woote bi pour ñëpp teew si Aar Daara woote fii ci parcelle unité 13 juma Serigne Modou Gueye jàkkaarloog hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh Aar Daara bëgg fa def benn bayaan boo xam ne dafay leeral lan moo tax a jóg loi bi ak itam bésu dimanche ba na ñëpp ñëw góor ak jigéen mag ak ndaw. rawatina sëriñu daara yi bu kenn tardé na ñëpp ñëw jëmmal bés boobu ndax bés boobu kët bésu valeur la bés boobu kët bésu yontu yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam bés boobu daal ñi ngi sàkku mbooleem fu waay mën a nekk ak lu gox ba sori sori sori na nga dëgg sa tànk ñëw kolobaan fekkee ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex ak ngóor jigéen pour ñu teg leen ay daan yu metti fii ci réew mi bayaan boobu nag sàkku nañu ci imaam yeeg sëriñu daara yi ñëpp ñu ñëw defee si ko fële ca sëriñ ca jumaay sëriñ Modou Gueye jàkkaarloog hôpital Ma da baax ca unité 13 ku mu fekk nga am ngànt bu mënoo ñëwit ñi ngi sàkku ci yow jumaa ja nga nekk nga def ca bayaan leeralal nit ñi mënu góor jigéen waaye itam nga fàttali ñu nit ñi dimanche na ñëpp ñëw ca place de l'Obélisque na ñëpp ñëw place de la nation 9h ci suba ba 14h maanaam 2h ci bëccëg ñëpp yeeweeku delluwaat ca soxla yi ngeen baal ñu àq. asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa ma fàttali rek ni képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw tamit euh, am na ay numéro audio bii di daw numéro yaa ngi noonu ci suuf. képp ku soxla ay leeral rek boo wootee ci numéro yooyu benn boo ci wootee ñetti numéro la benn boo ci wootee dinañ la def ay leeral ci lépp loo xam ne matul ci audio bi soo wootee ñu leeralal la ko insha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullah